asalaamaaleykum mbokki internet yu Sénégal 4 TV amati nañu mbégte ak contentement ni ñu koy defee ay bis yu nekk dikk ak yéen ci émission bi ngeen tànnal seen bopp di léppay leer léppay leer tey defe naa ne mu dalal daanaan kullu ci wàllu li nga xamante ni ci lay yëngatu ñu koy wax soxna Kya Aidara ñu ak moom ci Ouest Foire ci benn Wally Seck bi jëndandoo tey itam di jox sa wàccuwaay. papa maa ngi leen fay yéen ñëpp maa ngi leen ak asalaamaaleykum yéen tam nuyu leen. di nuyu yàlla subhanahu wa taala yaa waxab yaa yu maalik yu di nuyu yàlla subhanahu bi ñu bàyyi fi tey bu ñu gisante bu ñu déggante maa ngi ko nuyu bu baax a baax maa ngi nëbbu ci ginnaaw yàlla subhanahu wa taala di gis leeraay prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leeraay prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ma kanam yàlla subhanahu wa taala maa ngi nuyu itam sama ñaari waajur yi ñu ma bàyyi ma juddu ba tey ma nekk fii di déggante ak yéen maa ngi leen nuyu bu baax baax su ma paree ma nuyu sama sëriñ mooy seen Babacar Sy Rabia Talla nuyu Sénégal yëpp nuyu sëriñ diine yi sëriñ aada yi nuyu yéen ñëpp ak seen tudd ak seen sant. Mhm. defe naa ni mbokk yi nga xamante ni ñoom ñooy seetaan Sénégal 4 TV ñu ñoo leen tàmbali euh, saa bu jafe-jafe wala mbokk benn xew-xew amee ci réew mi dañuy seeti ni ay borom xam-xam yu mel ni yow comme ça dikk suñu micro ngir mën a waxtaan ak ñoom ci tolluwaay réew mi ba maa fi toll nii am loo xamante ni dafa xew ci réew mi. Mhm. ñoom seetlu ko. tàmbalee bëri. Mm-hmm. muy wàllu violence bi nga xamante ni mi ngi am ci euh, campagne mm-hmm. présidentielle. Mm-hmm. bu njëkk daaw ko gis. nga gis ni campagne da daan ñëw ba jeex. bakkan bu rot. deret du tuuru. waaye campagne bi moom tàng na ci. bari na li ci bari na nga am ci loolu. Euh, ban jàngat la am la ba ñu si mujj jamono benn ñaareel bi euh, nit yi bare fàtte na seen cosaan fi ñuy jóge da xam kilifa aada ñu ngi fi. comme kilifa diine ñu ngi fi parce que mënu wax benn bay benn faut nga wax ñaar yëpp lébu ñu ngi fi santige ge ngi fi manga ñu ngi fi jollaay ñu ngi fi euh, comme tout temps li ma wax internet soo nag yaa waxul ñëw leen si man kese soo nag yaa nee fi jaam am rek ndax xam jaam neex na si réew fi dëkk bi am na jaam soo nag yaa am jaam fi dëgg bi amul jam soo nag yaa du am jam moo tax suñu dem si ñoom ñëpp ñaan ñaan leen mu dëkk mu am jam yàlla dina def ñu jàmm mais ñoom duñu yàlla duñu ñenentu mais yàlla moo leen sax teg leen fii mooy eh, dëkk bu am jàmm ñu ñaan leen dëkk bu am jàmm su loolu weesu na tam ak si yi bare yi ak dee yi bare yi ak léegi dee yi gën a bu bare yooyu mujj jamono yi ak tam rawaane yi dañu bare rawaane seytaane surtout dafa bare ak tam def def bi tam kenn du bàyyi bàyyi si yàlla tax ku nga def kii mu ne ma def ko si saa si ak tam liggéey bon yi bari na rawaan yi tam ñu ngi si doomu aadama ñu ngi si rawaan yi ñu ngi si tant que euh, seen Babacar Sy Rabia Talla fi dëkk bi mu nekk euh, Serigne Touba si dëkk bi mu nekk maam Imaamu Laay si dëkk bi mu nekk ñaasane si dëkk bi ak a chrétien incha allah si kàttan yàlla xam na deret bari du tuur noonu deret yi tuur ñu ñaan yàlla mu yem si boobu si barka Quran si barka Sala Fatiha tout à sa fitna mi ngi ñoom papa ñu mënu tàggu si internet bi si àdduna bi yëpp déglu la nga ne deret day tuur di nga gis benn du nelaw di am njaboot si ginnaaw mu ngi si bitim réew mu ngi si feneen njaboot mu ngi ci biir Sénégal loolu tam même su nga gis benn affaire mu ngi ñëw su nga ko mën a fayal si sa xam-xam fayal ko su nga ko mën a fayal si xam-xam ñaanal yàlla subhanahu wa yaa wax bi yaayu mu fayal ko mën loolu laa gis. effectivement sëriñ si dañ doon génn avant campagne bi. di wax ni terrain jiitu dafay bëri bakkan yi te amu ci kenn koo xamante ni jéem ko def effort pour mhm. bañ a pour fexe bañ a def loolu bañ a am. man ñi soxna Kya ay dara mu tout à ma ne su dara day ñëw man ma def sama ñaan bopp yàlla mu safar ko comme semaine bi ñu jógee su nga xool weer bi man mun na woor deux semaines comme weer mun na woor une semaine comme woor mun na woor sax trois semaines su ma nekk sa en forme ma ñaan yàlla subhanahu wa taala su ma ñaan suma bopp dina ñaan adduna bi yépp parce que yàlla ne ne ashadu laa ilaaha illallah ashadu na muhammadan rasulullah abdi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yow mënu ñaan yow kese ñaan saw kër gi fàtte doom jaamil ni nga si bedd bi mbooloo tout à su mbooloo ñaan na yàlla yàlla mu def ko mais benn ni su nga ñaan yàlla benn tibulam la maye moo tax tout à su ma ñaan ma defa groupe man mi président bi ñi nekk suuf ñu am ñi nekk hôpital yépp laa ñaanandoo jaaru nga dem ma toog internet bi di tëtal doomu aadama yi mais deret day tuur c'est normal su dee am na loolu nit yëpp day dee même soo nekk ay jaram bu dee dee yàlla bu yéex loolu c'est normal les papa kenn war a tiital loolu. nit dafa war a rafetal sa xool yi ragal yàlla subhaanahu wa taala man loolu laa gis si mbir bi. effectivement mhm. élection yi. tax mu différent ak yeneen mooy bu njëkk dañ daan gis ni opposition daan di am doole di ko di mais élection yi dafa mel pouvoir bi moo jël doole sportifs ñëpp waaw coono lan la lu dañ doon gis si papa neexul ñu wax dëgg mm-hmm. man Sénégal pire la sama papa de laa man la man waa Ndar Ndar mais comme nit yi bari xamul Sonakia ah dégg wolof bu baax c'est normal parce que Sonakia ah Malayalam bi du Malayalam ñaar mm-hmm. moo tax mm-hmm. man sénégalais pire la mbub laa sant de man sama carte man Sonakia ah ay daram bub si Macky laa ko sànni mm-hmm. yow déggul wax bi de su leen neexee ñu Sonakia ay daram politicien la su leen neexee kii la faral ndax am mbuur papa yow kilifa parce que yaa ngi jël sa micro ñoom di man Sonakia ay daram bub ma orma parce que lu tax àdduna orma baax ku nga gis mu am fan orma ñi mbugu la orma teg la sa place orma président Macky Sall yalla moko def président ñun mënuñ ko bay yalla ku mu tegg ñun yalla may nañ xam-xam ñu gis-gis suñu gis-gis diine wax ñu rab ñu wax ñu kus contrôle wax ñu nit de wax deug wax de am mana suñu gis-gis ak suñu teetaan gis Macky Sall dina tok wante papa coobi coobi kan la coobi coobi Macky Sall la Macky mi ngi liggéey di papa ñun ni ngi dugg Sénégal ak tey du mi ngi liggéey ñu bàyyi mu def liggéeyam. effectivement defe ni kàddu gi leer na. Mhm. Euh, suñu maam Abdoulaye Wade. Mhm. dafa jógee Paris ay bés yi la ñu génn. ñu mhm. jógee mu wax wax joo xamante ni daanaka mënul naa taal mbir parce que dafa wax ni dañu jël suñuy carte électorale ñu taal tey en tant que tradipraticien en tant que borom xam-xam. ñu ngi safoon la. ban message ngay laata tey au-delà. day naa gis suñu maam Ablaye Wade daaw fenn nañ ma fii ma ne sonn ak yaay daraam ne nañu bind ko fépp man maa ngi Ablaye Wade màgget la mu toll yàlla xam na yeneen ko xam ne waxuma ko ndax moom borom fekkuma ko fii. même Macky Sall wallaahi billaahi taala su deuxième maanaam jeex na su jóge na fi keneen ñëw wallaahi dina wax si borom fekkuma fii moo tax. man sama maam mooy Moussa Diagne Badji Talla bi daal sànq benn ñu ne suñu famille Mbour lañ sama maam bu góor moom mooy premier maire di Bamako premier député di Bamako ñun fooyee su Mbour ba tey suñu kër su nga demee Mbour xaalisam mi ngi dem foofu ñu leen ñaanal ne élection ñëw na même élection bi passé ni Bamako la ma fekke mais voté ma si Bamako ñaan dañoo am cérémonie bu baax si këy na ñu woote ne ne ma ñëw ñu ma biir ma dem si cérémonie bi comprendre man. mbuur kee waxuma ci dara sunu maam Ablaye Wade ni ma mën a waxee rek yàlla ma def jàmm rek yàlla may ko xel bu baax ndax am sénégalais tam su nga leen toppee di leen la yéegal après ñoom ñeen la wàccan comprendre wax mi loolu kese laa ko mën a wax rek papa. effectivement mhm. defe naa ni kàddu bi leer na ndax mhm. ma bëggoon nag tëj buntu li nga xamante ni mooy buntu politique ubbiwaat beneen bunt mhm. muy jëm ci wàllu sport bëggoon a wax ci combat bi nga xamante ni moo dox instant bi ci diggante ko pour nga seet ñu faral di gis mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ni Balla Gaye bu fekkee dafa am combat dès que ñu si def signature contrat rek coow bi day bëri grand place yi la ñuy waxtaanee internet bi moom la ñuy bindu mais combat Modou Lo Eumeu Sène taxaw na ba démb sax def nañ face à face mais affaire bi yënguwul dañoo amul benn lan la dana si man wax mbir papa maa ngi jégalu rek la baax ak dama wax si boobu maa ngi jégalu baax baax waaw da nga gis combat ma wax si combat da nga ma ko gis ma wax si combat loolu dama bëgg dama bëgg xam ba xam combat déedéet ma wax si combat mais dinaa nuyu modulo sama dom day korkërési sama xarit mo Lo ku bax bi xol bi rafet na loxo bi taaleku na yeeram soxna ki ya idaram bu tout temps diko def geste sen Babacar si laa ko bay mo fay ko ci xono ngi ci walu côté bobu ñoom ndax mbëri léeg-léeg ñoom ëppal te bayre ci sen bi da ngay toog gis mbër bi mo mais papa même dof yi xamna na Modou am na bayre de ah papa ñu bàyyi wax combat ñu jël benn wax ñu indi ko wat dama dama bëggul nga wax ci combat bi digënté Modou Lo ak Eumeu Sène loolu laa wax dama ne combat dama wax ci bobu même kuy daan ci wax. du ma wax si boobu wallaahi bi lay tàllaay ma préféré di waxtaan ak sama yu si si côté bi mais sama maam maama taw deful boobu. su ma def loolu waa Mali suñu gis ma ñu mere ma ñoom nee na am na waxal fu nga neexee bu ragal dara tant que yaa ngi nëbbu si ginnaaw yàlla subhanahu wa taala kenn mënu si dara si yow. man Macky Sall rek ba bis bi yàlla dinañu ko fi keneen ñi ma wax si kooku tamit. defe naa ni ponk boobu leer na kon dama koy tëj ubbiwaat beneen ponk. Mm-hmm. instant bi euh, maman Kia. Mm-hmm. waa bitim réew mi ngi jooy. Mm-hmm. ñun bis bu yàlla sàkk suñu téléphone yi dañ ci jot ci ay messages kenn xamul lu mu toll. yóbbu naa ci sëriñ trois cent mille. yóbbu naa ci sëriñ cinq cent mille. waaye daal sama aajo fa dina ci. boo a xam fan la problème yàlla ma fay la si barka Alxuraan si barka Salafaatiya si barka laa ilaaha illallaah wala yàlla dina la ko fay. dama waxoon jour passé ci internet bi ma ne su yàlla def na Macky Sall gagné na yi mu def benn concours ñun sëriñ si comme genre <laughs> soxna ay yaay dara bàyyi njabootam si ginnaaw ñëw fi Sénégal di liggéey ndax xam ni mu ñëw si liggéey fi dafa bëgg am ci dara. aduna xam ko su xam ko rek aduna xam na ko ba pare de parce que chaque jour. Mhm. nit ñi ñooy jël seen bagage dugg ci conteneur may ko soxna ci kii ay dara ci yàlla tax. yaa ngi léegi sax dëgg laissez passer nañu si si euh, talibé cheikh bobu bu mag bi mm-hmm. man soo nekkee ay ganamul partout commencé ko roi yi nekk dem dubai Maroc partout nit ñoo ma joxe man su fekk na xaalis la mm-hmm. dama wara bay xam-xam am nako ko ba doyoo wallaay bi day tàllaay gauche droite ñi nga may suba ba ngone nit ñi ma maye di ma maye mais xam-xam Sénégal man wax na fi man président Macky Sall mu def ben concours même si foog na nag soxla Kya Aidara fitin na mun tokk bii rek la mun nit yi ñëw leen wis ko si tokk boobu yow tam li nga mun nit yi wis la si tokk boobu mais am na ñeneen ñu génne ñu mer si loolu ah Serigne benn kilifa nee ne mu ne ñu def nii ñu def ni parce que ñu commencé mer man ak sama moroom ñu nekk fi ñu togg suñu biir di waxtaan léegi xam-xam Sénégal comprendre fi dara ah soxla Kya Aidara yéen am nañu chance parce que yéen nit yi bari xam nañ ne kilifa yi bari xam nañ yéen am nañu si mën a dara di doon il faut ñu doon benn mbooloo di wax ñu waxee présent dinañ déglu ministre de la santé dinañ déglu ñu def benn concours kii yow li nga mun bi nga yem si ki ni mu mun mu yem si ki mu mun yem si parce que moo tax eh, ñu nekk bitim réew ñoom day sonal papa ñun dem nañ bitim réew seen jaay yi ngi ree ñoom seen tàng yi xaar seen gémmiñ nii te lu koy xaar alal bi si safara lañ ko jël benn seen taw fee wax boo xam ne ñu yónni ko seen million ak seen milliard mais su nga wax wax Sénégal neexul su nga wax ñu dul si intérêt sa nday saga sa mbay man soxna fi ay tout am wax saga sa sama yak sama mbay ana sa nday mi ngi sa su nekk sa keur mi ci bambel bi ana sa bay mi ngi sa keur sa keur mi ngi ci bambel bi ma bay ko nit ñu bay ci mbay bay affaire sen kan man descendant ma du kala di la sangu ben makal du du ma du ma ne ku bako de xamul dara ma sama yëpp yalla la ko bay ku gëm nga ñu ku gëmul wassalam sama client tam tan yi mënu ma leen jël election lay nek dama nek ci ñaan ak liggey ma tax ma ne ñu bàyyi ba election jaar ma doro len jël ñi feba ñom mu xaar ba election jaar ñu soxla fekk ñu xaar ba election jaar ñu ñëw inshallah ci katu ñaan yàlla ñu mën def ñoñu ñu jappalé né ci yalla tax mais xam-xam Sénégal doyna wa su nga di wax fay wax rek problème ci bari am mënu ma wax dara. ci loolu mënu ma wax dara munu xam na day fay nek li nga xamante ne mooy

comme siti bu xasan si bëcc bi comme siti bi génn si kanam siti bi xeer tànk yi numéro ki interne yi externe yi folimatal nga xam këru Sénégal dañoo tuddi folimatal du ma ko mën a jël sama kër suñu ma waree ma déplacé dineen fekk foofu incha allah si kàttanu yàlla ak yeneen feebar feebar comme diabète tension mauvaise haleine man de faju yooyu yi ma yëngatu ma wax dëgg yàlla te li ma jëmmatu tam yëngoonte ma si yooyu incha allah si kàttanu yàlla yàlla jàppale ñun ñëpp yàlla jàppale yéen tam yàlla mu def dëkk bi am jàmm si barka Quraan si barka Salaat Faatiha ñun ñëpp àdduna yëpp man yéen président Macky yàlla def ñun ñëpp ñu ne butu ginnaaw yàlla subhanahu wa di gis leeraay prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam yàlla subhanahu tam boobu mu def dëkk bi am jàmm si barka Qur'an si barka sala faate yaakaaruma kenn dëkk ba am jàmm yàlla laa ko yaakaar subhaana taala ak kilifa yi nekkoon fii gën a àdduna yi mumuni yàlla yi nit yàlla yi wàllu yàlla yi ñoom ñëpp laa wax mboq Sëriñ Babacar Sy de ñoom ñëpp ñaan ne dëkk bi dereti tuur yi élection bi yàlla mu def mu am jàmm si barka Qur'an si barka sala faate yàlla si barka boobu maa ngi nuyu Sëriñ Massamba borom incha allah sëriñ sëriñ yi sama xarit borom incha allah maa ngi noonu man ma seen ma ne tout le temps soo nekkee ay dara bu ko def lu baax rek mu wax ko man mënu ma def lu baax maa ngi ko nuyu bu baax ba borom incha allah maa ko nuyu am na sëriñ yi liggéey si lu set am na sëriñ xam ñu nekk fenn am na sëriñ tam ñooñu baax na seen ko rafet na maa ngi ko nuyu bu baax baax seen masamba jaajëfal nañ leen bu baax a baax mbokki internet bi Sénégal 4 TV ñoom nga xamante ne